ok incha allah ñu ngi war a jël tey fukkeelu aaya ak juróom benn ci suuratu shura aaya 16 ci suuratu shura wallazina yuxaajuuna fi llahi min baadi ma stujiba lahu alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi santaat suñu boroom subhanahu wa taala mi ñu wërsëgal ci mbaaxam ñu dajewaat ci néegam bi tey di fas yéene jël lenn ci ay aaya yi nga xam ne wàcce woon na ko te yenentam ba sallallahu alayhi wa sallam loolu nga xam ne mooy garantie bi mën a garantie xeet bi ci ñu sax ci njub ci ñu moytu kéefér looloo tax suñu borom mu ne wa kayfa takfuruun wa antum tutla alaykum ayatullah naka ngeen di weddi te ñu leen di jàngal ay borom bi loolu it kon jullit ñi tànk ñi ngi taqoog alquran di leeral leen ci alquran seen biir dana nekk ci ñoom garanti amma buñ demee ba jullit ñi sori alquran mboolem fitna boo xam ne dal na ci ñoom loolu mooy sabab ba gën a mag ba nga xam ne moo koy waral kon incha allah tey jii sunu mbokk bi Ousmane Niang dafa nekk ci ngant waaye yónni na fi ndongom bi di Alioune Badara Sarr moo ñu war a jàngal incha allah suñu bind yi بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sunu boroom subhanahu wa taala mu ne wallazina yuxaajuuna fillah ñi nga xam ne ñi ngi dàgg sante ci yàlla ay ci mbir yàlla min baadi mastu min baadi mastujiba lahu gannaaw ba ñu wuyoo ñeel yàlla moomu xujjatuhum daahidatun inda rabbihim seen lay day neen lay doon ci seen boroom wa alayhim ghadab te dana leen ñeel am mer wala hum azabun shadid dana leen ñeelit mbugal mu tar mu leen di xaar allahu alladi anzala alkitaba walmizan yàlla moom allahu alladi anzala alkitaba bilxaqi walmizan yàlla moom nga xam ne moo wàccee téere ba ci dëgg wàcce balance itamit mi ngi noonu wa ma yudrika laalla saata qarib ma yow lu lay mën a xamal ne bisu penc day mën na am mu nekk lu jege lool yastaajilu biha allazina laa yuminuuna biha dana nekk di ko yàkkamti ñooñu nga xam ne gëmuñu ko wallazina amanu mushfiquuna minha waaye ñi nga xam ne dañoo gëm day ñoom ñi ngi nekk di ragal ci bisu penc googu di leen xaar wa yaalamuuna annaha alxaq te it xam nañ ne loolu moom dëgg la ala inna alladhina yumaruna fi saa la nga xam ne moo am mooy ñi nga xam ne ñooy dagg sante ci mbiru bisu penc la fi dalalin baid ñoom day ñi ngi ci réer goo xam ne réer gu sori la allahu latifun bi ibadi yàlla day ku am ñeewante la ci ay jaamam yarzuqu man yasha mooy wërsëgal ku mu soob wa huwa alqawiyu alaziz mooy borom kattan gi mooy ki nga xam ne moo not lépp jalla wa ala bi al aziz bokk jullit dañuy gis ne sunu borom yàlla bi mu waxee ay yonentam ñu woote am na yeneen ni jaam yoo xam ne ñoom dañoo jàmmaarloog yonent yooyu di jéem a fay woote gi yonent ga lu yàlla subhanahu wa taala wax ñu wecc bu dee ca yéeféer ya seen mbir leer na waaye malheureusement da ngay ñëw ci jullit ñi fekk ci am muhammad walam fatima boo xam ne mën na am sax léeg-léeg mu julli waaye aayey borom bi mu nekk di ca dagg sante loolu mbokk ñum te munta passé loolu bokk na loo xam ne ñoo ngi koy dund mooy tey buñ demee ba ay jullit attana toog di débattre di wax ne peine de mort amul benn njëriñ bokk loolu lu gën a garaw loolu daanaka yombul ndax loo xam ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala moom moo ko digle bam ñu koy digal du ñun la ko jëkk a digal digal na ko diine yi fi jiitu woon yépp yemul ci digle ko waaye mu ne ci ngeen di mën a amee dund ko dal ab jullit àttana taxaw wax ne amul benn njëriñ lii nga xam ni tey mooy muuraayu jigéen ñi léeg-léeg nga gis ab jullit bu taxaw di ka ŋàññi ŋàññi yoo xam ni yéefir yi sax ŋàññiwuñ ko noonu ngi noonu léeg-léeg sax mu doon ko ñuy tudde ab sëriñ ngi noonu attana taxaw ak ay mbooloo mu mu la wër mu jeex ñu naan ne xijaab jël ay muuraay di lëfër lëfër di xijaabu jigéen mooy personnalité jigéen nu la neex melal sa personnalité bi nekk sa kanam mooy sa xijaab ba benn góor du la ñeme loolu kon yaa gën a xam yàlla yaa gën a xam yeneen ci yàlla yàlla mu ne yow yeneen ci waxal sa soxna yi ak jigéen a jurit nii yurdaniina alayhinna min jalaabibihinna yow nga ne déedéet loolu amul loolu mbokk la suñu borom ne ñi nga xam ne ñooy daggsante samay aaya yi gannaaw ba nga xamee ne am nañu gëm yàlla topp yàlla da xëy na ab yonente woote kenn gëmu ko sax am ñu ko weddi loolu lu garaaw la waaye nag yëmul ak yonente bi woote ay boromi xel gëm ko topp ko yow nga jaar fa la neex di daggsante ci loolu moo tax suñu borom mu ne ñu mel nii merum yàlla day wàcc ci ñoom merum yàlla dana wàcc ci ñoom alayhim xadab ca loolu la jullit bi muslu fu mu mën a toll ca mooy xayril maxdubi alayhim yàlla yàlla nag mu musal bokk mooy bokk ci ñi nga mere ay yow monsieur l'intellectuel bokk na luy wàcce merum yàlla ci yow la yàlla wax ci téeréem wala yonent bi wax ko ci xadis yi wér nga naan mee nag mee nag nangam nangam loolu day wàcce merum yàlla ci yow te it suñu borom yàlla nee na lay boo mën a indi bi su penc neen lay doon daaxida ay baatila inda rabbihim la leen fay xaar muy mbugal yu tar suñu borom yàlla moomu nga xam ne nee na maa wàcc téere alkitaab donte ne ne alkitaab bii dañ koy jële ay jinsul kitaab ma wàcc téere ma wàcc tawraat injil zabuur donte ne li gën a màgg ci mboolem téere yooyu mooy alquran téere boobu mu wàccee dañuy gis ne bokk na loo xam ne moo ko tax a jóg mu ala kulli xaal kon mbokk mi ngi noonu suñu borom subhanahu wa taala mu ne moo wàcce téere bi ñu mu koy wàcce ci dëgg la ay yenent bi yàlla bi wàññiwu ci dara yokku ci dara nim jóge ci yàlla noonu la ko jàngale bil xaq moo wàcce al mizan miisaan boobu la ko borom xam-xam yi firi ci place yi mooy ak maandute mbokk alquran day woote maandute al adl maandute mooy lan mooy ku ne nga jox ko ak xam am na ñu jàpp ne maandute mooy yemele déedéet maandute mooy ku ne nga jox ko ak xam looloo tax maandu gi nga xam ne moo jëkk a yey ñu maandu suñu diggante ak suñu boroom lan mooy maandute suñu diggante ak suñu boroom mooy nañ ko jaamu buñ ko bokkaaleeg dara ndax dañuy yemale yàlla ak keneen heure boo yemalee yàlla ak keneen su boobaa da ngay gis ne mushrik nga sawara nga jëm kon la yàlla yeyoo moom nañ ko jaamu buñ ko bokkaaleeg dara maandu gi ñuy maandu suñu diggante ak suñu yeneen sallallahu alayhi wa sallam mooy nañ ko déglu ci jaamu yàlla gi doyloo ay waxam buñ ko yemele kenn bu ñu xisee ba ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam su boobaa li imam Shafii doon wax ba bil ayni wa ras foofu rek moo ci tege heure boo demee ba yemele a rasul sallallahu alayhi wa sallam nga yemele ko kenn ci xeet bi ay waaye nay Aboubacar Saddiq wala Omar ibn al-Khattab wala Ali ibn Talib wala kum mën a doon nañ xam ne loolu abadan abadan nekkul loo xam ni lu suñu borom yàlla di gërëm ci ab jaamam kon suñu borom moo wàcce al mizan loolu moo tax ba ngalawaay yow mi nga xam ne da nga yor ak sa njaboot njaboot googu fexeel teg ci ñoom al mizan na nga maandu seen diggante ba bu kenn ci ñoom di yëg ne lii kat ak jàng dafa am yow mi nga xam ne yaay atte sunu borom moo wàcce al mizan atte sa ndey ak sa baay ak doxandéem ba la jóge Pologne na yem ci yow képp bu dee ne yaa ngi atte wala yajrimannakum shana'aanu qawmin ala alla ta'dilu suñ borom mu ne lu ngeen mere mere ay nit su ngeen demee bay atte wala wax dëgg bu mu leen yóbbu ci ngeen bañ a maandu muy al mizan donte ne bokk na ci mizan boobu balance arab balance bi la mizan la koy wax te loolu it mooy maandute mooy waa ji ñëw ne damaa bëgg ci lob ceeb ah xëy na boo tibbee jox ko mën na nga loru wala mu lor la sunu borom xelal doomu aadama misaan mooy mu taxaw nga pesé ba mat un kilo mu dem nga dem bu dee gramme yaa nga dem mu dem bu dee ay tonne naka noonu al misaan sunu borom yàlla nag daa ji ne lan moo lay xamal fa ma yudrika ñu ngi noonu lu lay xamal ne bisu penc mën na am mu nekk lu jege te mbokk bisu penc yonent yi ñi ngi doon wax mi ngi ñëw bokk na luy wone ne jege na yàlla bi mu yónnee suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye gaa yi negam ci jamono yonent bi la jege woon bu dee nag quatorze siècle junni at ak ñeenti téeméer ak nangam wàññeeku na ca ndax gën te jege waay aha kay doonte ne yow jullit bi xellu naam yaa ngi xalaat bis penc ñëw na mais xam nga lan mooy li itteel mooy mën na am sama bis ba may jokkaleeg bisu penc lu jege la ban bis moo lay jokkaleeg bisu penc mooy sa bisu dee lu jege la am déet da ngi noonu suñu mbokk bi inspecteur Samb ñu ngi am seen bëkk benn dëkkandoo barki démb ñoom ñu ngi nekkoon ci juma bi Grand Médine di réunion lenn bi ñu réunion moom moo ne waaye nañu arrêté bilaal noddal ba ñu ba ñu pare ñu continuer na am foofu la ko gëj a gis moom nee na ba ñu xëyee suba ca tisbaar mu ne waa këram waajal leen waxtu wi jot na jóg dugg ci douche bi di jàpp foofu la daanu foofu la dee loolu benn misaal la boo xam ne tax ma tudd ko mooy dafa gën a jege rek waaye yéen ñëpp am ngeen ci misaal ca mooy yéen ñëpp am ngeen ci misaal ca mooy sa bisub dee mën na am lu jege la ci xamu ci dara ëndam lu jégg la ci yoo xamoo ci dara da nga noonu su ko defee loolu yow mi am xel yaay ki nga xam ne toujours da ngay nekk à jour yëg ci sa bopp ni fii ma toll de yëg naa ne su doon dee naa si danaa mën a am ngërëmal yàlla subhanahu wa taala heure boo demee ba yëg sa bopp ne ah place bii de ma nekk su ma fi dee woon du ma fi am ngërëmal yàlla gaawal daw heure boo demee ba yëg sa bopp lii nga xam ne maa ngi ko nekk càcc gii may càcc njaaloo gii ma nekke yàmbaa gii may tux lii may kar gii ila axiri lii daal su ma ci dee du ma am ngërëmal yàlla gaawal bàyyi ko lu tax wa ma yudrika laalla saata qarib kan moo la xamal ne bis penc du jege la waaye ku la xamal ndax sa bis bi ngay wuy ji yàlla du jege la borom boobu subhanahu wa taala daa di wax ni ñi nga xam ne gëmuñu ko day ñi ngi koy yàkkamti naan yeneen ci yàlla bi waaw bisu penc mata saa kan ñu bisu penc di ñëw mata haazal waad mata haazal fatxu kan lay ñëw bés bu ne ngeen naan yàlla dañuy dekkal suñ maam yaa ngi dee dee dee kenn dekkiwul kan la dekkal di am borom bi nee na ñi ngi koy yàkkamti amma ñi nga xam ne dañoo gëm ñoom dañ koo ragal dañoo ragal bisu penc ngalla waay jullit bokkal ci ñi ragal bisu penc ak sa jaamu yàlla lu mu kawe kawe kawe bokkoo ci ñu ragal bis penc heure boo demee ba sa xol bi wax nañ la loo xam ni jàpp nga ne am nga dal man dee rek ma tee tabbi àjjana xamal ne loolu mandarga te xëy ji la dañ ci bàyyi xel bu baax am na jamono ji ñuy dund nekk na jamono yi puukare jamono yi ñi waroon a wax waxuñu ñii nga xam ne ñoo amul benn kàddu ñooy wël wëlbët ko du wax toog naa ci benn mbooloo ci fan yu néew ci semaine bii rek benn waay jóg ne yéen ñi fi teew yépp maa leen warlul ajjana mi ngi noonu mi ngi noonu maa leen warlul ajjana gaa yi naa loolu day lu baax la waaye nangam nangam bokk julit ah waaw alhamdulilah nag weddi naa ko ba la mu fay jógee alhamdulilah waaw waaye li ma bëgg a wax ci loolu rek moo dina ne tey rajo yeeg télévision yi dañoo garantil nit ñi ajjana ba seen xel dal ci loolu mbokk ñaare gi day alak doomu aadama bi njëkk mooy alqanuut min ra min rahmatillah mooy dem ba génn sa yërmande si génne sa xol yërmande yàlla man daal li ma njaaloo li ma agressé li ma sàcc ale di jàmbur xam naa ne man yàlla du ma baal loolu mbokk musiba la jullit bi def loolu quel que soit lu la yàlla masa nattoo ci bakkaar xamal ne li tax yàlla sukkuraatul rek mi ngi lay wax tuubal ma baal la kañ la la yàlla dul baal mooy bis ma sukkuraate loolu muy benn amma ba nga xam ne moo ci tegu mooy wal amnu min makrillah sunu borom mu ne wala yamunu makrallah illa al qawmu al xaasiruun ñi nar a perte kese ñoo dem ba jàpp ni yàlla ay pexe mucc nañ ci mbokk xam nga kañ ngay gëm ne mucc nga ci pexe yàlla bis ma demee ba jéggi siraat ba teg sa tànk ci aljanna su boobaa ne sa xel dal waaye suñu borom yàlla muy faalu li ma yurit lu ko neex lay def su ko defee ak jullit day boole ñaar yi alxawf war raja di ragal yàlla di yaakaar yàlla amma ishfaq boobu mooy ragal bu tar jullit ragal gi mu ragal bis penc dafa tar ci moom te mbokk ni ñuy ragalee bis penc bis penc gisuñu ko waaye la la fay taxa torox loolu ngay ragal am déet lépp loo xam ni wóor na ma lii bu ma ko defee yóbbaale ko bis pénc mën na maa toroxal nga daw ko ni ngay dawee gaynde mushfiquuna minha te ñoom xam nañ ne loolu dëgg la borom boobu nag walbatikuwaat daaji ne ñiy dàgg sante ci bis pénc am naag amul ñoom de ñi ngi ci cànkute goo xam ne cànkute gu sore sore sore sori la borom boobu ne mooy kii ñeewante ay jaamam allatif day firi borom yërmande ji nga xam ne mooy ki xam la gën a nëbbu ci lu nëbbu ay ay jaamam la nga xam ne moo leen di jëriñ sunu borom boobu xam nga mu ko xam ay jaamam kenn xamu ko ci masalan tey jii père de famille mën na am yërmande ci doomam waaye doom bi di tëb di cedd cedd cedd luy pexe daw ak moom yóbbu hôpital woo médecin bi médecin yi moom bu ñëwee dana yërëm xale bi mais da caa boole xam-xam boo xam ne boo ko jëfandikoo xam ne xale bi kat lii moo ko tax di def nii loolu nag suñu borom yàlla moo ko matale latifun bi ibaad la leen di jëriñ moo ko xam looloo tax mu wàcce leen ko woo leen ca la gën a màgg li jëriñ doomu aadama muy diineem mu ngi noonu ñi ëpp la xéewal ci xéewal yàlla ci kaw suuf mooy ñi yàlla jagleel diine lislaam yàlla na yàlla rey ñu ca mi ngi noonu mooy xéewal gi gën a rëy ci xéewal yi gannaaw ba suñu borom yàlla latifun mi ibaadi diine jooju woyefal na ko ki feebar bul woor ki amul aju paasu makka yàlla mu ne teggi naa la ko amoo alal zakat bi teggal naa la ko mënoo taxaw di toogal mënoo toog tëddal ila axiri nga dem ci wàllu li ñuy dunde ci kaw suuf suñu borom yàlla moo am yërmande ci ñoom wàcceel ñu la nga xam ne moom mooy am ndox wàcceel ñu ngelaw bu ñuy noyyi wërsëgal ñu ab dund aataakum kulli ma saaltumuhu lépp lu jaam yi soxla yàlla moo ko yombal lu tax mooy allatif bi ibaadi moo tax suñu maam yi buñ daan wasin ci jigéen ñi di wax ya latif ya latif ya latif mi nga noonu ala kulli xaal mooy suñu borom yàlla subhanahu wa taala mooy borom yërëmaande ju mat yi léegi nag mu ne yarzuq man yasha mooy wërsëgal ku ko soob benn waaye ne ah waaw yàlla yàlla ñu naan yàlla dafa bëri yërmaande waaye man maa ngi nii awma mbokk julit yaa ngi trésor bu rëy rëy rëy trésor bi rëy rëy mooy nga yëg ne yow julit nga buy jaamu yàlla ndax xam nga su yàlla tàllaloon sa wërsëg ndax diina jooju ngay dund da nga ci sa xam deet wallahi lu ëpp ci jaamu yàlla yi la ñuy def takkoog jàkka ja dinaa fi lu guddi di jàng alquran parce que dañoo amul rek waaye bu yàlla tey lu ubbi seen seen seen seen alal société yi wër leen compte banque yi wër leen da ngay gis ne seen jaamu yàlla dañ koy sàggane te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñaari rakk yi nga jóg julli ca fajar moo gën dunya wa ma fiha am déet ak tey ni fajar nee na moo gën àdduna ak li ci biiram su ko defee kon jaam bi yàlla mii borom yërmaande dana xam ne muudu caam mii kat xaaral ma bàyyi ko ci ñàkkam gi muy jóg di daanu léeg-léeg mu am léeg-léeg mu ñàkk ndax su ma ubbee ay xéewalam léegi mu sàggane jaamu yàlla loolu ci yërmaande gi yàlla yi def la léegi-léeg it koo xam ne yàlla day xam ci moom ne kii kat bu ñàkkoon léegi dana sàcc dana PMI ji dana bu dee jigéen ji dana dem jaayi boppam ila axiri yàlla may ko as tuut loo xam ne ca ngay dëgërloo loolu moo tax jullit day wax alhamdulilah ala kulli xaal maa ngi sant yàlla ci lu mu ma féetee ndax allahu latifun bi ibadi maadaama def naa li ma war a def yàlla xañ ma yàlla xam li tax mu xañ ma alhamdulilah allahu latifun bi ibadi yarzuqu man yasha waaye it mooy alqawi mooy borom kattan gi te mooy kii notaat ba borom not lu mën a doon ay dara tëwu ko jàll wa ala yërmaande la ju ànd ak kattan mi ngi noonu su ko defee ab julit da koy doyloo sëkk doyloo ko ci la may borom yërmaande ji doyloo ko ci la may borom kattan gi kon amul looy soxla du lu am na ca kattan mi ngi noonu jàll wa ala bismillah
ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفضل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير barakallahu fiik suñu borom mu ne man kaana yuridu xarsa al axira koo xam ne da nga bëgg la nga xam ne mooy toolub alaxira di mbayum alaxira nazid lahu fi xarsi kooku day daañ ko dollil ca la nga xam ne moom mooy toolam boobe wa man kaana yuridu xarsa dunia koo xam ne nag toolub adduna bi dong nga bëgg nu'tihi minha daañ ko jox ci adduna ja wa ma lahu fi alaxirati min nasib te du ko ñel ci alaxira benn cër am lahum shurakaau shara'u lahum min ad-din moo ndax ñoom dañoo am ay bokkaale yoo xam ne ñoo leen di tëralal di leen yoonanal ci diine ji ma lam ya'zam bihi llah ci loo xam ne yàlla joxewu ci ndigal walawla kalimatul fasli la qudiya baynahum bu dul woon a kàddu goo xam ne gu ñu teqaleele ba pare ay gu yàlla dogu ba pare kon day doon na atte seen diggante wa inna zalimina lahum azabun alim ca tooñkat yi day dana leen ñeel mbugal moo xam ne mu tar la yowma alqiyaama suñ borom mu ne tara zalimina mushfiqina mimma kasabu da nga gis tooñkat ya ñuy nekk di tiit lool di ragal lool ca la nga xam ne fàggu woon nañ ko ca àdduna wa huwa waaqi'un bihim wa huwa waaqi'un bihim te loolu luy tabbale ci seen kaw walladina amanu wa amilu salihat amma ñi nga xam ne dañoo gëm cee jëf-jëf yi yiw ya ñoom day fi rawdatil jannat ña nga nekk ca la nga xam ne mooy rawda mooy jardin boo xam ni lépp dafa lënkaloo ca la nga xamee ne nii moom mooy tooli àjjana ya lahum ma yashaa'uuna inda rabbihim dana leen ñeelu leen soob ci seen boroom dalika huwa alfadlu alkabir lii day moom mooy ngëneel ya nga xam ne mooy ngëneel yu màgg ya mi ngi noonu bokk suñu boroom mu ne ki nga xam ne daa bëgg alaxira mi ngi noonu mooy ki xir ci alaxira alxaaris mooy ki xir gis ngeen te mooy borom tool bi dañoo gis ne moom it ku xiir la ca mooy day ji pour am leneen suñu borom nag mu ne ki nga xam ne mi ngi waajal alaxira ku mel noonu day borom bi subhanahu wa taala nee na danaa ko dollil ca toolam ba ay danaa ko booleel adduna ak alaxira mi ngi noonu képp koo xam ne waajal nga alaxira na nga ko war a waajal sa teraanga yàlla adduna la koy commencé man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mumin falanuxiyannahu xayatan tayiba yàlla mu ne danaa ko dundal dund gu tey wala najziyannahum ajrahum bi axsani ma kaanu yaamaluun suñ ñëwee nag ñu fay leen lu gën lañ doon def loolu mi ngi noonu amma ki nga xam ne adduna rek moo ko tax di jóg adduna rek lay liggéeyal suñu borom nee na ku mel noonu daañ ko jox ci àdduna ci àdduna jooje lañ ca soog ñun yàlla mënoo kër kër yi ba am ci àdduna lu dul neex yàlla allaaxira boo fu ñëwee doo ci am benn pay loolu it kon nga la waay yow jeune jullit yóbbaaleel xamal ne la nga xam ne muy réussite kenn du ko am ci won gannaaw sa diine échegal sa diine soo bëggee am réussite bu sax àdduna ak àllaaxira réussite ba commencé ko ci sa diine ngal la waay fonkal diine yàlla bi bàyyil ay tereem doo ci sax lu dul yàlla moo garanti ne wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuqhu min xaysu la yaxtasib képp ko ragal yàlla na nga ko war a ragale xat-xat boo dugg danaa la ca mas a génne danaa la wërsëgal foo ko foogewul woon loolu kon ngeen sóoraale ko nazid lahu fi xarsi am maa ko àdduna tax a jóg sunu borom dégg la nga xam ni moom la ca wax ku mel ni Ali ibn Abi Talib daana wax ne aaya bii day la koy firi la suñu borom di wax ne almaal walbanuun zinatul xayaati dunia walbaqiyaat alsalihat xayrun inda rabbika sawaban wa xayrun amala ay dajale alalu kese dajale ay doom yi réussir kese ne loolu la taarub àdduna la am na ñoo xam ne seen dund yëpp ci loolu lañ ko jeexal waaye fexe ba am albaqiyat salihat albaqiyat salihat mooy lépp loo xam ne lu yàlla subhanahu wa taala digle la ci jaamu yàlla mu am ci lu yomb lool lu góor man jigéen man ko faqir man ko borom milliardaire man ko kii nekk tukki man ko ñépp man ko mooy baqiyat salihat subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar mi ngi noonu waa ji xëyoon te ji am lu jege dix millions yow nga fexe fexe ba loolu nga mën ci dóor ay mille tasbix xamal ne la nga am keroog moo gën lam am moom albaqiyatu salihat borom boobu subhanahu wa taala mu ne ndax nit ñi dañoo am ñu ñuy bokkaaleeg seen boroom ñoo xam ne ñoo leen di tëralal ci diine ji lu yàlla joxewul ndigal bokk nañu xam ne sunu borom moo wàcc diineem wàcc ko ci yonent yàlla bi ba diine ji mat mu ne tey jeex na léegi nag ki ñëw daal di sos ak jaamu yàlla ne ah kay nii de buñ ko doon jaamoo yàlla lu baax la loolu mooy la imaamu Malik doon wax ku mel noonu day jàpp ne ne yonent yàlla bi dafa wor nit ñi ndax moo waxoon ne diine ji mat na nii la ko yàlla bëgg yow nga ñëw dolli ci ne ah kay lii te la bokk mooy kon yonent yàlla war na nit ñi am déet tey jii am na ñoo xam ne bi fi yonent bi jógee ba def junni at ak ñaar téeméer nee na yonent bi dellu si waat na dajeeg seen kilifa jox ko loo xam ne boo ca waxee benn moo ëpp doole nangi mi junni alxuraan joo jàng waaw loolu xiiwal gu rëy googu yëpp yeneen ci yàlla xamoon ko waxu ko ay saxaabaam bàyyi bi mii na après mu koy wax ñeneen loolu kay la Maalik gën a wax mooy faqad zaama anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam xaana risala jàpp ne yonent bi dafa dafa wor ala kulli xaal kon mbokk ñu xam ne bidaa ci diine képp ku koy sos yaa ngi teg sa bopp place yàlla képp ko xam ne jaamu yàlla gii kat yonent bi jàngale woo ko waaye masamba mii moo ko sos nga ànd ak moom ci loolu teg nga ko place yàlla gaa yi ne waaw ñu naan biddaa biddaa biddaa am na ci ko ci daan saboté nee na waaw yéen ñuy wax biddaa biddaa biddaa tekki leen seeni montre yonent bi daawul takk montre biddaa biddaa biddaa bu ngeen demee puut bu leen fa jënd mango yonent bi daawul dem puut di jënd mango waaye ala kulli xaal mbokk julit sunu borom yàlla dafa leeral am lahum shuraka wa shara'u lahum mina mina diin sunu borom li mu bañ mooy ko sos ci diineem ji waaye adduna bi sunu borom mu ne wa saxara lakum ma fi samawat ma fi l ardi jamian minhu nee na maa leen tàggatal nekk ci kaw asmaan tàggatal nekk ci kaw suuf doomu aadama yi explore exploité leen ko loolu tax doomu aadama xel bu mën a créer courant xel bu mën a créer portable xel bu mën a créer woto loolu suñu borom yàlla moo ci joxe ndigal am naa diineem ji nag moo ko wàcceel boppam tànn kenn ku mu ko jox ba mat mu ne nii laa ko bëggee am déet su ko defee bokkul mbiri àdduna ak mbiri diine bokkul walla waaye nañ bàyyi xel ci loolu bu baax shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah suñu borom yàlla nag mu ne budul woon ak ne am na kàddu gu ma tëral ne doomu aadama bi lum mën a def duma ko rey ci diggam jeexul kon doon naa atte seen diggante waaye nag atte bi mi ngi ñëw borom boobu subhanahu wa taala mu ne da ngay gis ne tooñkat yi day mbugal mu tar mi ngi leen di xaar yowmal qiyaama heure buñ gisee sawara ba nga xamee ni nii ñoo ko fagg woon dañuy ànd ak seenum tiit yaa ngi jàng ci kaw borom bi di wax ne walladina amanu mushfiquna minha waa julit ñi gëm biñ nekk ci àdduna ñi ngi àndoon ak tiit amma buñ demee alaxira tiit googu ca tooñkat ya lay dellu heure buñ jàkkaarloog sawara waaye yàlla du booleel ab jaam ñaari tiit wala ñaari kóllëre képp koo xam ne ragal na mbugal gaw sunu borom yàlla digg alaxira borom bi ne waliman xaafa maqaama rabbihi jannataan ku ragal mbugalum yàlla àjjana moo lay xaar amma saay saay si suñu borom mu ne sawara moo leen di xaar daañ ko ragal ca duuñ mën a teqalikoo ak moom amma ñi gëmoon ca doon def lu baax lan mooy lu baax mooy lu yonent yàlla muhammad jàngale lépp loo xam ne yonent yàlla ba jàngaliwu ko du lu baax loolu biddaa la tudd suñu borom yàlla subhanahu wa taala ni ñooñu day ña nga ca la nga xam ne mooy rawdatul jannat mi ngi noonu riyaad yooyu nga xam ne arab yi daana ko wax tool bu bëri ay tendrement ki raisin ba pare roofaloo loolu daañ ko am ca seen jardin yi nga xam ne kenn xamul fu mu yem ca buñ demee lu leen neex am foofu nga la wa yow ndawal jullit xamal ne soo bëggee noos dëgg dëgg dëgg noos goo xam ne amul limite fexeel ba dem àjjana rek àjjana rek nga mën a dem lu la neex am waaye Obama mais di wàcc di waaj a wàcc ab chef des États-Unis wala Trump mais di waaj a yéeg ñoom ñëpp ñu ngi ak soxla yu fajuwul am déet su ko defee kon yow jullit saxal tabbi ajjana lahum ma yashaa'una fiha loo bëgg biir ajjana soo bëggee yàlla subhanahu wa taala defal la te it gannaaw ba borom bi nee na ca seen borom la ñuy nekk loolu muy wane ne borom kattan nga borom yërmande ja inna zalika huwa al-fadlu al-kabir texe bi gën a màgg bu doomu aadama mën a faggu ci kaw suuf mooy fexe ba tabbi aljanna say ndaw buñ la rewee ñee ay architecte lañu ñee ay médecin lañu ñee ay milliardaire lañu ngal la waay yow ndawal jëlit fexeel ba buñ la raw alaxira texe ga dëgg-dëgg rawante ba dëgg-dëgg ma ngi am ci alaxira ca daraja yi nekk ci biir ajjana ya yàlla yàlla féete lañ toog yi ca gën a kawee ñu ngi noonu bismillah
ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك فيمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إن الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد xasbuk barakallahu fiik suñu borom mu ne àjjana jooju day zalika allazi yubashiru allahu ibaada loolee day la yàlla di bégale ay jaamam allazina amanu wa amilu salihat ña nga xam ne ñoo ca gëm tey jëf-jëf yu yiw ya qul laa asalukum alayhi ajra neel man day laaju ma leen ci lii ma leen di woo benn pay illa almawaddata fi lqurba lu dul ak cofeel ci ak jege yoo wa man yaqtarif xasana xasanatan képp koo xam ne yaa ngi faggu aw yiw nazid lahu fiha xusna daañ ko dollil ca loolee la nga xam ne mooy gën a rafet inna allaha gafurun shakur sa borom yàlla kuy jéggale la kuy santaakun la kuy sant ay jaamam am yaquluuna iftara ala allahi kadiba am ñoom dañuy wax ne yonent bii kat dafa dóoral ci yàlla ay fen fa in yasha illahu yaxtim ala qalbi su neexoon yàlla mu kaste sab xol wa yamxu llahu albatil doonte ne yàlla mooy faxas mooy effacé dàq la nga xam ne mooy ak neen wa yuxiqu alxaqa bi kalimaati daa di dëggal dëgg ci ay kàddoom innahu alimun bi zaati sudur mooy ka xam la nekk ci biir denn ya wa huwa alladi yaqbalu tawbata an ibaadi mooy kiy nangu tuub jële ci la nga xam ne mooy ay jaamam wa yafu an an sayiaat mooy bale la nga xam ne mooy ñaaw téef ya wa yaalamu ma tafaluun te mooy kiy xam li ngeen di jëf wa yastajibu alladina amanu wa amilu salihat mooy wuyu ña nga xam ne dañoo gëm tey def lu baax wa yaziduhum min fadli moo leen di dolli ci ay ngëneelam walkaafiruuna lahum azabun shadid amma yéeféer yi dana leen ñeel mbugal moo xam ne mu tar la mi ngi noonu mbokk suñu boroom li ñu wax ajjana yi xaar jullit ñi yowmal qiyaama mu ne lii moo ko béggale ay jaamam ay yow mi nekk ci kaw suuf yàlla nattu la nga ñàkk abshir béggal sax ci jaamu yàlla ajjanaa lay xaar yow mi nekkoon ak feebar yu grave yow yaakaar na du wér yow mi nekkoon ci tumuranke lum mën a doon saxal ci jaamu yàlla ca nga bég sunu borom mu ne lii lay bégale samay jaam yi nga xam ne dañoo gëm di def lu baax léegi nag yow yonent bi ne leen laajuma leen ci fay gi lu dul cofeel ci ak jege ñaale loolu borom xam-xam yi am nañ ci ñetti firin firin bu njëkk bi mooy ilal mawaddata fi lqurba ay ngir dara taxul may woote ngir ngeen am cofeel ci jege seen boroom ngeen am cofeel ci jege seen boroom te moo di ne ne sunu boroom yàlla subhanahu wa taala mi ngi wax sama jaam bi jege wu ma lu gën li ma farataal ci moom ila axir ku nekk war naa bëgg diina ji topp diina ji ngir jege boroomam borom baa ngi waxit ne ulaika lazina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila ayuhum aqrab ña nga xam ne ñoo doon woo ay bokkaale ay jinne wala ay malaaka wala ay yonent ñoom ñu ngi concours ku gën a jege boromam am na ñu ñu koy firee noonu am ñu ko firee ne illal mawaddata fil qurba la ci yonent bi jublu mooy ay yéen waa Makka laaju ma leen pay xanaa kay li ma leen di wax mooy ku nekk ci yéen seet mbokk gi ma bokk ak yéen ca waa Makka mooy waa Quraysh seen maam Quraysh moo leen meñ ñoom ñëpp kon ñun ñëpp ay mbokk lañu ca bokkoon na ci aaday arab ca daanaka ceddo goo dem ci kaw gi xataa Sénégal ak yooyu seen mbokk moom lu mën a def dañuy farag moom mi ngi noonu même buñ tooñee sax seen yoon niwu ci mu ñu ne kon li ma leen di laaj li ma leen di laaj rek mooy àq bi ma am ci yéen ci mbokkoo gi ma mbokkoo gi yéen donte ni bokk na loolu mooy ñaareel bi donte na ba gën a siiw ma asalukum alayhi ajran illa al mawaddata fi l qurba laaj ma leen lu dul ngeen may mag cafeel may ko samay jegeñaale ca jegeñaale yonent bi mooy ñan mooy li ñuy tudd ahlul bayt wala fii fii di ko tudd ay shérif mbokk képp ku ñu xam ne ci yonent bi alayhi salaam nga cosaanoo dañ laa war a bëgg waaye ñu ngi jublu ci yonent bi yàlla la cosaanoo moo dina ne doomam ja Fatima amoon na ay doom ñu am ay doom ak lu ñu tuddee bani Hashim doonte ne jamono ji ñuy dund lu jafee xam la xanaa daal la la cay noppal mooy la mu'minu ali Yusuf waxoon ki ñëw taxaw ne man kat samay maam dàq lañ ko ba sut bu yonent bi la nga ne ko alhamdulilah sut bu yonent bi la soo ko mënee teral nga teral ko waaye lu jafee xam la amma moom bu dee wax ni dëgg wax ni dëgg bokkul dëgg it yow du la lor jeex na kon ñett yooyu yépp nañ ci bàyyi xel nañ bëgg diina ji ngir jege yàlla nañ bëgg suñu yonent yàlla waaye nañ bëgg it képp kuñ jàpp ne ca moom la bokk borom boobu nag subhanahu wa taala ni képp koo xam ne yaa ngi faggu la nga xam ne lu baax la danaa la dollil ci loolu ndax yàlla mooy bale ca mooy santaane mooy kii santaate mbokk loolu da ngay gis ne tuyaaba boo def suñ borom yàlla danaan malaaka yi bindal leen ko ko fukki yoon fukki yoon bàkkaar boo def suñu borom ne malaaka yi bind leen ko benn yoon ngeen gis kon sunu borom ni muy sante waaye it bokk na ci tuyaaba doo def yàlla dolli la beneen tuyaaba masalan benn jeune day toog bu mujj rek yàlla xirtal ko mu ne naa dem julli ji jàkka ga julli ba pare ñu naa am na dara suñu fi def mu commencé toog di jàng mi ngi noonu loolee da ngay gis ne man lañ fay wax am na ku ñuy dimbali mu làmb poosam dimbali loolu day dem a dem a dem ba ay jaamu yàllaam dañuy yokku muy daw bakkaar naka nooy contraire ba noonu la demee kay nga xam ne benn jeune fille la ma nga xëy ne man daal damay dem jaayi sama bopp su demee dugg ci loolu balaa yàgg ma ngay tux cigarette balaa yàgg ma ngay naan sàngara balaa yàgg ma ngay sàcc balaa yàgg balaa yàgg ila xiri ca mooy tuyaaba di xëcc tuyaaba comme bakkaar ni muy xëcc tuyaaba bakkaar loolu yi ku ne war ci bàyyi xel bu baax suñu borom yàlla subhanahu wa taala nag ne yéeféer yi de ñu ngi naan lii lépp muhammad dong ko créé waaye yàlla waxu ko dara sunu borom ne man su ma neexoon tëj sab xol ba dootoo xalaatati nga dof complètement gaa yi loolu yàlla am kàttan ci yeneen bi amu ko ci ñu na waaye ah tey su neexoon yàlla ku ko neex mu jël am xelam demoon na jël ko xelu le premier président du monde muy Ronald Reagan am déet mas na jiite États-Unis avant muy faatu yàlla jël na am xelam ba naas rek la mën a wax mooy soxnaam si gis ngeen ala kulli xaal su neexee yàlla mu jël sa xel mi ngi ñuy wax feneen su ma neexee jël seen bët su ma neexee jël seeni dégg loolu it muy wane ne doomu aadama bi xol bii la yàlla wërsëgal bëgg ci la yàlla subhanahu wa taala bëgg gëm ca la yàlla bëgg ñu gëm ko weddi ca la yàlla bëgg ñu weddi ko su ma nee xol ma kaste sa xol la am kay mooy yàllay faxas neen di sànni di saxal dëggam te mooy yow lii nga ñëw da ngaa ñëw ngir dàq shirk ngir dàq ñuy màggal keneen ku dul yàlla saxal la nga xam ne mooy tawxid borom boobu subhanahu wa taala ne moom moo xam ne nekk ci biir dënn yi mu bokk ci loolu mu ne mooy nangu tuub ñeel ay jaamam te di far seeni ñaawteef mbokk julit heure boo xamee ne nii tuub nga dellu ci yàlla tu loo mënoon a nekke ci kaw suuf suñu borom yàlla dana nangu tuub ga ak loo mënoon a nekk ci kaw suuf amul benn misaal bu doomu aadama mën a misaal loo raw liñ ci yeneen ci yàlla bi wax koo xam ne téeméeri nit rey na leen ba mu wëlbati koo tuub yàlla da koo baal te itamit tuub googu nga tuub ba yàlla baal la ngay xalaat ñaawtiif ya nga xam ne ñoo jiitu woon yépp suñu borom yàlla mu ne lépp dinaa la ko faral su dee na koy tuub gi sell na ci yow borom bi mën a maa xam li ngeen di def ca la shakka ne mbokk ak tuub sa diggante ak sa borom la mais du sa diggante ak say moroom am na koo xam ne mën na ne tuub na parce que daa amul occasion rek ngeen noonu mën na ne tuub na parce que daa amul occasion rek waaye du sa amul occasion da ngay gis ne delluwaat ci loolu ba lenn ci ay borom xam-xam sax di wax naan jigéen bu ñu xam ne ak njaalookat la du dagan kenn du ko takk lu dul ñu boole ko góor gu ko tànte te mooy góor goo xam ne da koy jóge feneen mel ni yëgul proposé ko njaaloog moom su nee na ko ah loolu koy bàyyi naa ko ci yàlla tax ñoo xam ne kiy tuub na waaye am na yeneen borom xam-xam dañ yëpp dellu dee su ko def ndax am na moo ka nga xam ne mooy Samba Thiam bu demee dajeeg soxna si ba soxna si wuyu si ko mën na mu dugg ci musiba mais ngeen noonu ci it soxna si xëy na des fois it mën naa tuub waaye yàlla mën ko keroog ala kulli xaal nañu xam ne daal yàlla moom la kenn mën ko nax moom rek moo xam sa digganteeg moom heure boo xamee ne sincère nga sa digganteeg say boroom ci ne lii day dara ci àdduna jaralatu la nga def ko bégal ci xam ne yàlla baal na la yàlla na yàlla baal na ñoom bismillah
ولو بسط الله الرزق لعباده لبعوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قلتوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد فمن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير بارك الله فيكم لجيت نجل ولو بسط بي suñu borom mi ngi wax wa yastajibu alladina amanu suñu borom yàlla day wax ni mooy wuyu ñi nga xam ne dañoo gëm cay def lu baax mbokk suñu borom yàlla yéemul ci bu ko jaamam woo mu wuyu ko waaye suñu boroom moo woo jaami naan leen woo leen ma mu wuyu leen ndax yem na yemul de patron bi nga ñëw na ko monsieur le patron may ma bokkul ak patron bi la woo na la waa yowul xanaa soxla woo dara loo soxla ma defal la xam ngeen bokkul suñu yonent alayhi salaatu wasalaam nee na amul benn guddi lu dul buñ demee ba la nga xamee ne mooy genn wàllu guddi ga dem na wala yenn riwaay di wax ceer bu mujj ba des na suñu boroom dana woo jaam yi ku may ñaan ma may ko kuy sàkku ndimbal ma dimbali ko kuy jéggalu ma jéggal ko kuy xettili ma xettili ko ba baa fajar di jot mi ngi noonu jàll wa ala mu ne mooy wuyu ñu baax di leen dolli ci ay ngëneelam yéefiir yi mu ne mbugal ba tar moo leen di yor et pourtant alal ji ëpp ci alal ji mi ngi ci loxo yéefiir yi loolu ça veut dire que alal jooju kon du ngëneel am déet fitna la ñeel leen mi ngi noonu alal jooju du ngëneel fitna la ñeel leen du démb du bërki démb tey jii rek maa ngi jot benn xale bu jógee Italie yal na yàlla dool di ko yiw ñu koy wax Pape Seck mi ngi wax ak man ne ma fi muy liggéey ci Italie boroom société bi milliardaire la mais nee na bu muy xëy falaa koy fekk bu muy wàcc falaa koy bàyyi yaa ngi dégg ca mooy du ñu noppalu guddi du ñu noppalu bëccëg kooku da ngay gis alalam moo ko moom waaye moom moomul alalam su ko defee mbokk ay ngëneel dëgg-dëgg ci loxo yàlla la nekk ki ko mën a am mooy ki gëm yàlla koy def lu baax am maa ngi ñëw suñu bind bu bees bi suñu borom ni walaw basata allahu rizqa li ibaadi bu doon yàlla dafa tàllal wërsëg ñeel jaam yépp la baxaw fi l ard kon doon nañ bew ci kaw suuf walakin yunazilu bi qadari ma yacha waaye mooy wàcc ci ab lim ci ab kem la ko ca soob innahu bi ibadihi xabirun basir moom day nekk na ci ay jaamam ku ñàkk ci ñoom benn kumpo yi xabir al basir ki nga xam ne moo leen di gis ci xam leen wa huwa alladi yunazzilu alxaysa min baadi ma qanatu mooy kiy wàcc ab taw gannaaw ba ñu demee ba découragé ba ñëkki wa yanshuru rahmata daa di tasaare yërmandeem ja wa huwa alwaliyu alhamid moom dong mooy aji féete ja moom dong mooy aji ka yeyoo cant yépp wa min ayatihi xalqu samawati wal ard bokk na ci ay kawtéefam bind gin bind asamaani ak suuf wa ma basta fihima min dabba ak la nga xam ne tasaare na ko ci lépp luy dox wa huwa ala jam'ihim ida yashaau qadir te moom day te dajale gam leen di dajale heure bu ko soobee ku ci am kattan la wa ma asaabakum min musiba amul du leen dal ci benn musiba fa bima kasabat aydikum loolu ma nga jóge ca la nga xam ne fagg na ko seen loxo ya wa yafu an kasir donte ne ma ngay bale lu baree bari wa ma antum bi mujizina fi l ard xam leen ne mënu leen a nekk di tëj ci kaw suuf wama lakum te du leen ñeel min dunillahi min waliyin wala nasir du leen ñeel gannaaw yàlla ku leen di féetewoo wala ku leen di dimbali mbokk doomu aadama yi alal lañ bëgg commencé ci imam Sarr bi waaye suñu borom mu ne su doon te ne dama tàllal wërsëg ñépp kon nit ñi dañuy bew ci kaw suuf yahud yi dañ doon wax ne yaddullahi maglula yàlla dafa nay te lu tax joxul ñépp waa gars yi bu yàlla joxoon ñëpp kan mooy demu si duusi bu yàlla joxoon ñëpp kan mooy risque vie am di dem quatrième étage naan day peinture wala day nangam nangam kon bokk na ci yërmande yàlla mooy nii mu defe société bi ñii mu jox leen ñii mu xañ leen li yettaxida baaduhum baadan suxriya ngir ñi am di mën a liggéey loo ñu ñàkk ñu ñàkk seen ñàkk googu di tax ñuy mën a def ay liggéey loolu mooy mbir bi waaye bu loolu wéyee tamit la ëpp ci jaam yi mbokk alal ju bëri da leen di beewloo la baxu fil ard waaye suñu borom mën a may wàcce lu ko neex ca it la muy wàcce bëri na lool mbokk suñu réew mu ndaw mi soo demee laajal Sénégal ñaata milliers de tonnes la ñuy consommer par jour ci la ñuy consommer ci at mi ci ci ceeb ñaata milliers de tonnes la ñuy consommer ci sucre ñaata milliers de tonnes la ñuy consommer ci meew ila axiri ila axiri ci Sénégal gu ndaw ji léegi nag de par le monde ana ñaata milliards ci ay tonnes la yàlla subhanahu wa taala di génne lu ay jaamam di dundee di leen wërsëgal yokk bi qadri ma yacha borom boobu subhanahu wa taala ni mooy ki nga xam ne mooy xam ay jaamam xabirul basir loolu tax jaam bi dafa war lu ko yàlla sant lu ko yàlla féetale mu sant ko te ca muñ jeex na borom boobu ni lii di taw maa koy wàcce gannaaw bi nit ñi découragé ca mbokk ab taw yàlla dong nga ko mën a indi yàlla dong nga ko mën a indi yàlla dong nga mën a indi processus bay jur taw na am nim maye doomu aadama jigéen ëmb mu opéré ko génne doom bi may na tey doomu aadama ay nuage am ñu dóor ci ay sel argenté taw am waaye daa fekk ni ay niir am ba pare am déet su ko defee kon moom dong may wàcc taw gannaaw bi nit ñi ñekkee te mooy tasaari yërmandeem te it mbokk la chaque année golom Ndakaaru xamul luy njëriñi taw di nga noonu waaye mbokk taw moo tax nga mën a dem midi di mën a añ di nga noonu bu ñu toogoon dix ans yoo xam ne taw ñu ci kaw suuf quatre-vingt-dix pour cent population bi dañuy dee am déet loolu ñu bàyyi ci xel bu baax yarshub rahmat baram boobu subhanahu wa taala nag mu ne bokk na ci moom mooy dong mooy aji féete joo xam ne ku ko féete woo mu dimbali la moom dong mooy aji bo cant yi nga xam ne lépp moom dong la yeyoo mi ngi noonu donte ne hamid it day firi ne moom mooy sant ay jaamam jalla wa ala borom boobu nee na ci ay kawtéefam yoo ko mën a gise ay sa borom yàlla doo ko gis abadan waaye kawtéef yoo ko mën a xamee mooy ngeen di xool asamaan yi di xool suuf di xool liy dox ci kaw suuf soo demee ci ñoom gayndeeg ca pëcc yaag ca bàyyi ma yenn yaag soo paree nag teer si ci yow doomu aadama loolu lépp di kawtif bu jóge ci moom sunu borom mu ne la dajale leen yombal xiyaama lu ma yomb la te mbokk gëmal ne allaaxira buy ñëw mboolem gaynde gu mës a dox ci kaw suuf jaam ju mës a dox ci kaw suuf ah ñay bu mës a dox ci kaw suuf ginaar yaag picc ya lépp la yàlla di dekkalaat moo tax bisu penc doon mbir bu ñàng am déet ma yow ma nii jàll luy daana shiba bis bu ñàng lay doon gannaaw ba suñu borom yàlla ak ca seen diggante ñoom bàyyi may daa di leen wax kuunu turaba dem leen nekk suuf ñoom duñ dem ajjana duñ dem sawara mu des nag nit ak jinne nit ak jinne nag la yàlla di atte ñii mu yóbbu ajjana ñii mu yóbbu sawara moo tax yéefar yi doon wax yaa laytanii kuntu turaba aka neexoon man ma nekkoon golox ba muy dund ndax yàlla def ma ma nekk suuf mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala ni lu leen dal ci musiba mi ngi jóge ci li seen loxo faggu donte ne yàlla day bale lu bëri su ko defee mbokk lu la mën a dal nga la waay lu jëkk xoolal sa bopp say manki manki ca jaamu yàlla ya nga waroon a def ak bakkaar ya nga def ca la la yàlla subhanahu wa taala tere woon loolee sunu borom nee na lu bari li leen di dal yéen yéen a ko faggu ci seeni bakkaar ay réew moo xam ni dañoo dem yàlla xañ leenum nawet ay bakkaar rek ñoo ko waral réew mu dem sunu borom yàlla indi fa ay ngelaw yu leen di faagaagal ay bakkaar rek a ko waral tremblement de terre yi am ay bakkaar rek a ko waral zahara al fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydi nas bakkaar yi rek a ko waral donte ne mu ne li may bale moo ëpp loolu sunu borom yàlla nag ne ay yéen nit ñi xam leen ne mënu leen maa të ci kaw suuf te it amu leen gannaaw yàlla kenn koo xam ne mooy féetewoo seeni mbir wala bu nattu dalee seen kaw kenn ku leen mën a dimbali teggil leen ko ku dul yàlla jalla wa ala yal na yàlla féetewoo ñu àdduna ak alaxira yal na yàlla dimbali ñu àdduna ak alaxira wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad mooy lépp loo xam ne cosaanam ci suuf la loolu dañuy gis ne ñaar yëpp baax na lu dul am na ci lenn ci borom xam-xam yoo xam ni dañ naan tiim moom fokk mu nekk ci loo xam ne boo ca tegee sa loxo am lu la ca taqee na doon ci suuf bala directement wala xeer boo xam ne dafa am poussière bu ca tege ba nga xamee ni boo ca tegee sa loxo am lu la ca taqee waaye nag bu ñu delloo waatee ci cosaan yi li ñuy wax loolu naam am na borom xam-xam yu ko wax waaye la chaque ne tiim moom na doon fa ngay teg sa loxo am na lu la taqa loolu taq bi yëpp boo ci tiimee tiim ba baax na wallahu subhanahu wa taala alam man maay ana madinatul ilm wal wa ali baabuhu loolu lu siiw la ci yenn téere yi waaye xadis boobu wérul loolu du xadis te it doxalin wane ne wérul te mooy sahabatul kiram ñoom ñëpp ñoo jàngale xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamee ne lañ jëlee ci yenn saxaaba ya moo ëpp foofu lañ jëlee ci Ali loolu mooy lu lu lu njëkk li amma bu dee ne question bi njëkk luñ ci wax di sax ci naam al izza al izza day firi la nga xamee ne nii moom mooy teddaange day firi la nga xam ne al qudra muy kattan day firi la nga xam ne nii al ghalaba mooy di nag koo bëgg a not loolu tax izza boobu suñu borom subhanahu wa taala bi naafiq yi waxee rawatina abdullah ibnu ubay daa di ne la in rajana ila al madinati la yuxrijanna al aaz minha al azal suñ demee madina ka fa gën a tedd te mooy personnalité moom jàpp dina moom la dana génn ka fa gën a suufe mi ngi ci jublu suñu yeneen muhammad alayhi salatu wasalaam suñu borom yàlla nag ne yaa ñàkk a xam fa lillahi l izza wa li rasulihi wa lil muminin teddaange ki ka moom mooy yàlla te mooy ki gën a tedd ñëpp gannaaw ba ab yonentam moo gën a tedd jaamu yàlla yëpp waaye wal muminuun julit ñi gëm ñoo gën a tedd keneen ku dul ñoom xamal na mbokk yéeféer nay président di médecin di milliardaire bi may un milliard par jour nay def lu nekk julit bi gën a ñàkk solo ci ci julit ñi moo ko gën a tedd ci yàlla am déet loolu kon mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw bisimilah waaw waaw ku mel noonu dañuy jàpp ne xelam neexul ñu ñaan yàlla na ko yàlla saafara waaw bisimilah waaw waaw bisimilah waaw. waaw waaw incha allah waaw waaw incha allah xam naa day wax pour ñu bañ ko fàtte rek mooy néew yooyu nga xam ne dañu koy bàyyi ci hôpitaux yi duñu xam kuy seeni boroom te ñu yàgg leen koo wax am na enterrement buñ ci am dimanche bi di ñëw ñi ngi jógee hôpital de Fann donte ni am na ñuy jóge principal mais seen mbokk bi Mouhamad Gueye nee na mbokk yi nañ dem Fann gannaaw ba dana am ñu taxaw principal mais ñi dem moom ñi dem Fann ña nga xam ne nag demuñu ca sang ba ak taxawaay ba nañu fexe dix heures et demi fekk leen armée lu Yoff mi ngi noonu wallahu aalam waaw kon yaakaar naa mënees naa waaw ñu mujjee ci mbokk ba la rek waaw bisimilah waaw. dama ko gis muy jàng alquran mais moom du jàpp du yor jàpp da jël kaamil rek di jàng ma ne ko yow ndax boo jël kaamil di jàng doo jàpp mu ubbi daal di ne dafa dagg fatiha bi kon matatul kaamil mën na koo jël saa jàpp bokk loolu njuum ca la yow koy da ngay nangoo bokk ci ñi jàpp ne alxuraan mën na koo kenn jël jàpp wala déet waaye yonente bi alayhi salatu wasalaam ma doon jàngale sharia musul gis kaamil su ko defee alquran ci boppam lañu ne ki nga xam ne yorul njàpp waru koo jël di ko jàng ca la ëpp ci li borom xam-xam yi wax la ëpp ci borom xam-xam yi wax bala ngaa jël jukkib alquran même bu doon ab xisib sax da nga war a yor njàpp doo koo jël di ko jàng bokk la nag ab téere boo xam ne téere fiq la am aaya yu ca nekk loolu moom boo yorul njàpp mën nga koo jàng amma jàpp ne kaamil bi leen tere ku ko laal ba nga xam ne kon da nga ci xotti benn fëy loolu moom bokk nekkul loo xam ne nii lu wér la wallahu subhanahu wa taala alam xam naa ñu fii rek li mbokk yi nga xam ne ñoo dëkkee gox yi Grand Yoff ak Patte d'Oie ba Castor am na journée bu ñuy organiser at mu nekk di ko def ci jàkka Ali ibn Abi Talib bi nekk ci zone de captage ñi ngi koy waajal dimanche bi di ñëw am na ñaari conférence yu fay am bu njëkk bi ci suba gi lay doon docteur Mouhammad Ahmad Lo moo koy def ci yan teggin bu ñu war a jaar ci woote bu ñu dee woote ngoon de yëpp am na beneen conférence docteur Sidi Yaxya Ndiaye moo koy def ci lañ mën a jàngale yi jëlee ci nit ñu baax ñi nga xam ne ñoo fi jiitu woon la ñuy mujjee yëpp mooy ci waay mën a toll bu mu fàttee sunu mbokk yi nekk ci Syrie rawatina dëkk boobu ñuy wax Alep ñu ngi leen fay rey rey boo xam ni jamono yi gën nit ñi gën ñu ñoo gis lu mel noonu que la ëpp loolee am mooy wax dañu wax rabbuna allah gëm gëm gëm yàlla nekk julit moo justifié loolu su ko defee amuñu kattan dem xeex ak ñi nga xam ne ñoo leen di teg loolu la néew ci néew li nga mën a am yow julit ngalawaay nga bañ leen di fàtte ci ñaan yàlla li nga xam ne mooy xecc li ku ko neex yàlla yàlla wàcce fa jàmm ak afiya yéeféer yi nga leen di sonal yàlla yàlla delloo ay bi ci seen kaw yàlla yàlla musul ñi ci fitne yooyu di yegsi ci suñuy réew wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain